tey carrément. booy bi ay 16 ans 15 ans 16 ans 15 ans waaw xale la xale bu ndaw la. fii mooy que ni waruñ waruñ di waruñ di jéggi fii parce que pont bi tout près boo xoolee lii yi fi maa tay lay juróol c'est parce que pont bi tout près la ba pare moom mu ñëw tëb barrière bi maanaam amaana daal kenn mënul wax lépp daal vraiment affaire bi doy na waar. jégee soriwul tout près moom dafa ñëw tëb tëb kii bi tëb barrière bi daanu léegi bi mu daanoo la tant muy jóg borom oto baa ngi daw vitesse si la ñëw jaar si bopp bi waaw yëngatuwul sax kenn fekkewul mu yëngatu man mi ko njëkk a gis sax gisuma waat gisuma yëngatuwaatam nañ bàyyi bi ñuy jégee di jaasi pasareet bi waaw loolu daal xam naa ne